alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa man walaah noo ngi sant buur bi nga xam ne jurul kenn te kenn juru ko te nguuram gi kenn bokku ca sunu boroom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo bind lépp ñoo ngi seede ne amul kenn ku ñuy jaamu wala mu yeyoo dara ci xeeti jaamu lu dul moom sunu boroom mooy ki nga xam ne mooy dundal mooy rey mooy teral ku tedd ku ne moo la teral ku torox moo la toroxal ku kawe moo la yëkkati ku suufe moo la daaneel ku ree wala nga jooy wala mu nattu la wala mu may la jàmm loolaay sabab sax bari aana ku torox sunu borom tabaraka wa taala teral ko ba mu soppi koo jëm ci njub bari aana ku tedd sunu boromu tabaraka wa taala toroxal ko ba mu wonee gannaaw njub bari aana ku suufe lool féete suuf njub tax sunu borom tabaraka wa taala yëkkati ko bari ana ku yëkkati ko lool itam sunu borom tabaraka wa taala wëlbati ko mu suufe ci kaw sababus wan gannaaw gum wan gannaaw njub moo tax sunu borom tabaraka wa taala nee na waman yuhini llahu fama lahu min mukrim koo xam ne yàlla moo la suufeel toraxal la kenn mënu laa teral mënisu laa yëkkati inna allaha yafalu ma yashaa sunu borom tabaraka wa taala mooy def lu ko soob di seede ni muhammad ibnu abdullahi ndawam la sallallahu alayhi wa sunu borom tabaraka wa taala moo ko yónni ci dëgg mu doon koo xam <clears throat> dafa ñëw ngir bégal képp ku nangoo topp ñëw di xupp képp koo xam ne dafa lànk di woote jëme ko sunu borom tabaraka wa taala di woote jëme ci yàlla ci ndigalul yàlla nekk itam ab làmp bu leer la ko sunu borom tabaraka wa taala tudde kon yonent boobu yàlla na borom bi tabaraka wa taala saxal ay julleem ak xéewalam ci moom ak saxaabaam ak képp ku ko topp gannaaw loolu mbokk jullit yi sababu sabab yi tax sunu boroom tabaraka wa taala ab jaamam bi ko gëm yi tax sunu borom tabaraka wa taala mu aar jaamam bi ko gëm sabab yooye day yu bare bare bari la waaye nag sabab yooyu la ñuy gën a bari la ñuy bari bari la ca ëpp solo mooy ngëm yàlla gu ànd ak jëf ju baax ngëm yàlla gu ànd ak jëf ju baax ju baax nag bari na lool bu la neexee man nga ne kon ragal yàlla ak njub soo leen boole mooy firi loolu sun borom tabaraka wa taala moo ko waxal boppam moo ne allahu waliyu alladina amanu yàlla mooy péetem ñi ko gëm yuxrijuhum min azulumaati ila nuur fuñ toll fu nekk moo leen di génne ci lëndëm yóbbu leen ci leer kon moo leen di wattu sunu boroom tabaraka wa taala moo waxaat ne yusabbitu allahu alladina amanu bilqawli saabiti fi lxayaati dunia wa nga xam ne dañoo gëm yàlla te topp ko yàlla moo leen di saxal mooy dëgëral seenu lay ak seenu taxawaay fii ci àdduna ak ëllëg ci àllaaxira sunu boroom tabaraka wa taala moo ne inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu ñi nga xam ne ñoo déclaré ne nun day yàlla mooy sunu boroom yemuñu ca loola waaye ñu teg ci njub maanaam ñi boole jëf ju baax ak ragal yàlla ñoo ñooñu nee na tatanazzalu alayhim almalaika nee na malaayika yi dañuy wàcc ci ñoom di leen dolli fit di leen dolli xel mu dal di leen wax ne allah taxaafu bu leen ragal fi ngeen jëm soo nekkee ci sukuraat wala lu ko jege bum tax nga tiit fa nga jëm ndax imaan nga ak jëf ju baax ja tax taxzanu waaye bu leen tiit itam ci li ngeen bàyyi gannaaw kon loolu daalalu xel mënu ko weesu di dem ba tële wala mu nekk ci sukuraat wala mu yëg ne génn àdduna soreetut malaayika yi wàcc ci moom ne ko bul tiit fi nga jëm waaye bul am njàqare ci li nga bàyyi gannaaw kon loola ak wattu ak dalalu xel ak seral xol mënu koo weesu moo tax ca beneen aay ba ba mu ne inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu daf ne falaa xawfun alayhim wala lu ñuy ragal fañ jëm waaye amuñu lu ñuy jàq wala ñu koy naqarlu it fiñ jóge sun borom tabaraka wa taala moo wax ne yaa ayuha alladina aamanu ittaqu allah wa qulu qawlan sadida ragal leen yàlla boole ko ak jëf-jëf ju baax ak wax ko su ngeen ko defee yuslix lakum amalakum wa yaxfir lakum dunubakum moo leen di defaroon seenu jëf ba mu baax mu nangu ko waaye moo leen di jéggal itam bépp rëcc-rëcc mu tekk ne wa man yuti allaha wa rasulahu faqad faasa fawzan azima képp koo xam ne nangu naa topp yàllaa ko yonentam nee na kooka moo texe maanaam topp alquran ak sunna kooka moo texe sunu borom tabaraka wa taala kon gàttal na wax jooju jépp ci wattu gi muy wattu ki nangoo doon jaamu yàlla te di ko jaamu mu ne alaysa allahu bi kaafin abda ndax du yàlla moom mooy wattul boppam ab jaamam wa yuxawifuunaka billadina min duuni nee na nit ñi dañ lay tiitloo ci ñeneen ñoo xam ne seen kattan jegewul kàttan ak yàlla wala mu séen ko waaye nee na loola waru leen a tiitloo ndax tiit ca loola ak réer lay doon te wa man yudlilillahu fama lahu min haad te koo xam ne xas na réer sànku na kooku kenn mënatu koo gindi suñ borom tabaraka wa taala nag aar gi muy aar ab jaamam waxoon nañ ne ay xeet yu bari la lam koy aare nag sabab ya waxoon nañ ne mooy ngëm yàlla ak jëf-jëf yu baax waaye nag ca lam koy aar yooya la ca gën a fés mooy aar ko ci am lënt aar ko ci am lënt ba pas-pasam du yàqu waaye aar ko ci bànneex ba jikkoom du yàqu aar ci bànneexu bakkan ba jikkoom du yàqu ndax yaar yooyu kat lu gën a bari ci nit ñi bu seen diine di yàqu looloo koy yàq subuhaat muy lënt yi nga xam ne buñ dikkee bopp bi lay yàq pas duutu fa nekk ay lëndam lëndam rek a fay nekk wala achahawaat muy bànneexi bakkan yi nga xam ne bu xasee ñëw dafay yàq jikko ja nit ka duutu nekk ku jub ci wàllu jikko ngir mu wattu ko ci lënt nag mooy lan mooy mu won ko dëgg mu nangu ne lii mooy dëgg ba noppi topp ko won ko lii dëgg moom mu nangu ne lii kat mooy dëgg ba noppi mu nangu ko topp loola mooy tawfiix ji bari na ñoo xam ne sonn nañu lool ci gëstu waaye gisuñu dëgg ci caaxaan lañ dund ci lañ faatu dem uy ji seen borom am na ñoo xam ne gis nañ dëgg waaye nanguwuñ ne lii mooy dëgg ndax am na yeneen i gàllankoor ak i lënt-lënt yu nekk ci seen bopp ba ñoo jàll mu xañ leen dëgg am ñoo xam ne gis nañ dëgg nangu ne lii muy dëgg waaye toppuñu ko ndax bànneex ko ko waral wala ay intérêt wala lu nuroog loolu yàlla may la ñett yi nag kooku mooy kaaraange bu rëy ji gis dëgg nangu ne mooy dëgg ba noppi topp dëgg ba noppi won la caaxaan maanaam safaanub dëgg nga nangu ne lii caaxaan la ba noppi nangu koo bàyyi loola mooy la ko mottali moo tax ñaan gi ñuy faral di dégg ñu di ko wax allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila ñaan googu ci loolu la jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ñaan gum daan ñaan gu nuroog googu lool soxna Aïcha muy ummul muminin radiallahu moo ñu ko nettali ci xadis boo xam ne al muslim génne na ko mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu masaan jóg di julli guddi ñaan gi faaw dana ko wax allahuma rabba jibraila wa mikaila wa israfil yow sama borom day yow mi nga xam ne yaa bind malaayika yi gën a siiw ak ya siiwut muy jibril ak mikaal ak mikail wa israfil yow mi bind asamaan ak suuf yow mi xam lu nëbbu ak lu feeñ yow day yaay atte sa jaam ñi ëllëg ci lépp loo xam ne wuute nañ ci mu daal di cay teg ne yow sama boroom maa ngi lay ñaan nga gindi ma ci lépp loo xam ne wuute am na ci ci dëgg la wala du dëgg nga wan ma la cay dëgg nga ma la cay dëgg ndaxte kat yow yaay gindi ku la soob mu jaar ci siraatul mustaqim mooy yoon wu jub kon loolu dara gënu ko rëy ci wattu nit ki ba aaru ci ay lënt yoo xam ne bu ñëwee mën na koo yàqal diineem beneen bi mooy wattu ko ci bànneexu bakkan boo xam ne dafay yàq jikko moo tax sunu borom tabaraka wa taala nattu bu mag ba tegu woon ci yonent yàlla yuusuf te jëm ci wàllu jigéen sunu borom tabaraka wa taala dafa ne kadalika li nasrifa anhu suu walfaxsha innahu min ibadina almuxlasin nee na nun noo fexe ba ñaawteef ak mbon muy xeeti njaaloo ak siwut ci yuusufa foofu boroom xam-xam yi dañuy wax ne aaya bu am balaaxa la ndax néewul li nasrifahu an suui walfaxsha waaye li nasrifa anhu suu walfaxsha kon daa mel ne ñaaw ñaawteef ak mbon mbon moo doxoon jëm ci yuusufa mu ne ko taxawal waaye du caagi ne yuusufa moo doxoon jëm ca lu bon mu ne ko wañikul kon mbon ak càggante ak njaaloo ga jigéen ja doon wut ca moom loola waaxu woon jëm ci yuusufa alayhi salaam sunu borom tabaraka wa taala aar ko ne ko taxawal yow ñaawteef taxawal yow njaaloo bul àgg ci sama jaam bi parce que dafa bokk ci jaam yi nga xam ne yuñ xettali lañ ci bunt boobu ku bokk ci taabiroon yi muy ndongo yu saxaaba yi muy amir ibnu rabia amir ibnu qays at tamimi e, ku siiw la ci jaamu yàlla ak baax ak xër ci lépp loo xam ne lu baax la benn bés dafa tukki ànd ak ñi nga xam ne rek ay njëgg la ñuy doon yoo xam ne dañuy war seeni gëléem di dem ci àll ba moo xam dañuy jënd ak jaay wala dañuy roñal nit ñi seeni bagage waaye ca liggéey bu mel noonu ca la àndoon ñu doon am njëkk waaye rek muy def saabu mbooloo mi yësalee seeni gëléem ci guddi gi rek ba toog mu jekki-jekki rocciku rek dem bàyyi leen fa te kenn xamul lu muy def ba mu yàgg kenn ci ñi àndoon ak moom ne man de danaa fexe tey jii ba xam amir mi fan lay dem nee na mu bàyyi ko ba guddi mu rocciku dem mu topp ci moom dikk fekk bi mu demee ba génn ba sori leen mu daal di taxawal jublu xibla di julli nee na mu julli julli goo xam ne amul genn julli gu ko gën a rafet amul genn julli gu ko gën a mat amul genn julli gu ko gën làmboo aku ragal yàlla ba mu jullee ba julli la ko soob mu sëlmal tàmbali di ñaan ak di déeyaaleeg boroomam mu ne ma dégg ko muy wax naan yow sama boroom ñaan naa la ñetti mbir nga may ma ñaar mu des benn yow sama boroom benn bii ci des maa ngi lay ñaan nga may ma ko ndax ma man laa jaamoo ni ma la bëgg a jaamoo nee bi mu ñaanee ba noppi waa ji daal di jékki-jékki ne pël fi kanamam génn nee bi mu ko gisee Amir dafa tiit tiitaange ju tar ne ko dimbali ma suturaal ma li nga gis ci man bu ko kenn yëg mu ne ko duma la suturaal li feeg waxoo ma ñetti mbir yooyu nga doon ñaan lu mu doon mu ne ko ndax su ma la ko waxee da nga ma suturaal mu ne ko waaw mu ne ko bi ci jëkk mooy sama boroom dama koo ñaanoon mu jële ci sama xol bépp fitna boo xam ne jóge na ci jigéen jëm ci man fitna mooy jaare ko ci mooy yàlla mu ne waat naa ci sama boroom ne faalewuma fi ma tollu diggante ab miir ak jigéen xàmmewuma leen kon googa ñaan nangu na ba ca des nee na ma ñaan yàlla mu jële ci sama xol bi ragal keneen ku dul moom mu ne fii ma tolluwaat naa ci yàlla ne amut kenn ku ma ragal ci kaw suuf ku dul yàlla mu ne ñetteel ba nag dama ko ñaanoon mu dindil ma ngëmmeent ci samay bët ndax ma mën a saxoo jaamu yàlla du ma nelawati nee na boobu nag la amagul ba léegi eh, loola waaja def na la mu ko waxoon ndax nettaliwu ko ci ak dundam waaye bi gannaaw amir génne àdduna nag ci la nett li lool kon nga xool loolu boobu jaamu yàlla ak ni mu ak ñaan yi nga xam ne moom la ñaan ba borom bi tabaraka wa taala aar ko ci lépp loo xam ne xeetu mooy yàlla la wu jëm ci banneexu bakkan kon ñaan sax bokk na ci sabab yi nga xam ne dana tax sunu borom tabaraka wa taala aar jaam bi loolu moo tax sharia jàngale ay ñaan yoo xam ne da koy ñaan suba di ko ñaan ngoon ndax suñu borom tabaraka wa taala du caagi ne mu aar la rek ci lu lay lor ak lay faagaagal sa bakkan waaye lu lay indil fitna bu yàq sa diine te loolu mooy la ci ëpp solo nag bokk ci li koy wone e, ci ñooñu ni nga xam ne noonu la leen suñu borom tabaraka wa taala doon defale kaaraange ci lépp loo xam ne day tàbbal ab jaam ci mooy yàlla léeg-léeg ñu dugg ci ay xat-xat yoo xam ne da ngay jàpp ne kenn mënu caa génn waaye danañ fexe ba génn ci am na kuñ daan wax abu bakar al miski maanaam turam dañ ko doon askane ci gëtt gi ñuy wax misk benn parfum bi dàq ci parfum yi la lu taxoon ñi di ko ko wax mooy fu mu mas toll rek loolu day xeeñ ci yaramam yaram bi daal gëttu misk la daan xeeñ fu jaar fu nekk ñu xam ko ci moom ba mu yàgg ñu tudde ko abu bakar al miski ñu ne ko nag benn bis nag ñu laaj ko ko ne ko waaw yow gëtt gii di xeeñ ci yow foo toll fu nekk mu ne leen yàlla xam na ne ay ata ngii day laaluma gëtt googu ñuy wax misk waaye li ko waral lenn la benn bis dafa am jigéen ju sàggan mu def ay pexe ba dugal ma këram tëj ay buntam ne ma nag mooy yàlla rek moo fi sës wala ma yuuxu nit ñi ñëw ma ne danga ma doon sàkku nee na ma gëlëm xaw ma nu may def ma ne ko de euh, li nga wax dégg naa ko waaye nag dama am soxla ca wana wa dama soxlaa dem wanag nee na mu woo benn xale ne ko àndal ak moom won ko wana wa ne bi ma agsee ci wana wi faj sama aajo ba noppi jël mboolem loo xam ne génne woon na ca moom ci ay sobe diw ko ci aw yaramam ba mu mel ne maar day taali nee na bi ma agsee rek bi ma xoolee moom dafa jaaxle dafa tiit ni gaaw leen génne ko kër gi nee na ñu génne ma kër gi bi ma demee ci kër ga alhamdulilah daal di sangu ci guddi gi ma tëdd di nelaw gis ku ne ma yow day def nga loo xam ne kenn mësu koo def waaye danaa la defal ci sa yaram gëtt goo xam ne faye la ko li feeg yaa ngi dund ci àdduna ak alaxira du tàggoo ak yow nee na bis boobee la xëy gëtt googi di xëy ci yaramam ba foofu mu toll musul musul jóge ci moom kaaraange sunu borom tabaraka wa taala pas-pas bi ne ci xol bi nga xam ne moo bañ lu bon te kenn mënu ko caa dugal kooku mooy kaaraange gi sunu borom tabaraka wa taala di defal jaam bi kon kaaraange bopp gi bu jàllee ba nga xam ne xel mi du yàqu pas-pas bi du yàqu ndax mucc na ci ay lënt ñu aar der bi ak jikko ji ba du tàbbi ci ay bànneexi bakkan yu yàq jikkoom des na nag kaaraange koo xam ne suñu borom tabaraka bu ko soobee dana ko may jaam bi mooy aaral ko jëmmam itam ba diisu ko mën faagaagal loolu suñu borom tabaraka bokk na ci yi nga xam ne bu mu aare ko ab jaamam waaye bokk na ci sunu borom tabaraka wa di gën a wattoo ab jaamam ci xeeti jaamu yàlla yi ma tudd mooy rafetal jëme ci waajur rafetal jëme ci ñaari waajur rawatina waajur bu jigéen kenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne ay wootekat yu siiw lañ nettali na ab nettali bu doy boo xam ne moom ci boppam nee na moo ko gis nee dama tukki ci menn réew ci réew yi génn daal di doxantu ci tefesu ak dex goo xam ne du dex gu rëy lool dex gu ndaw la taxu koo xóot itam waaye nee na fi may doxantoo noonu rek ma jekki jékki gis jiit yoo xam ne ni mu rëyee maar retaal yi jiit yoo xam ne kéemaan la nee na benn bonaat génne ci ndox mi ma xool gis jiit ji ñëw war ci kaw bonaat bi bonaat bi commencé di féey di dem nee na ma ne lii de kéemaan la ñàkkut ñàkkut lu xew nee na mu xuus di dem man ma topp ci ñoom di dox nee na mu jéggi dex gi ba génn naka mu génn ca suuf sa rek jiit ji daal di wàcc daw xel yu gaaw bim mu agsee ci suufu genn garab nee ma seen nit kuy nelaw nit kookuy nelaw am na benn ñàngoor maanaam jaan ju mag nee na mi ngi ubbi gimiñ gi jëm ci waajooju di nelaw bi jiit ji agsee nee na dafa yéeg ci kaw jaan ji tàmbali di ko fett nee na tëlatul dara muy xalam ko di wëlbati ko di wëlbati ko ba mu yàgg mu tëdd sedd guy jiit ji ci demu yoonam nee na ma agsi ci waa ji yee ko mu jóg ma nettali ko li ma gis mu ne ko yow mii rek laa bëgg xam luy sa mbir yow ndax lii ma gis nii dug neen nee na mu ne man day dama yor yaay joo xam ne ku mage la maanaam màggat na ñaareel ba <clears throat> handicap la mënatu la dox te it dafa silmaxa te amatul mbokk ci kaw suuf ku dul man lépp lu muy def maa ko koy defal guddi ak bëccëg liggéeyal ko mooy sama itte saa bu ma yëgee ne nag noppalu na mi ngi nelaw mi ngi dallu béréb bii nga ma fekk may nelaw foofu laay ñëw dallu fi ba ci kanam ma jóg delluwaat ci sama yaay kon boo xoolee loolu ci ngay gis xikma sunu boroom tabaraka wa taala xoola kii nga xam ne bu jaan ji agsi woon ci moom def ko lim koy def bu faatoo soxna soose fu mu jëm ci àdduna kon ci ngënee lu topp ñaari waajuram ak defal leen lu baax ak liggéeyal yaayam jooji ci la ko sunu borom tabaraka wa taala aare kaaraange jëm goo xam ne sunu borom tabaraka wa na ko ba lor ju mel noonu dalut ci kawam kooku day dalay won ne yàlla mooy ki gën a màgg lépp mooy ki gën a xarañ lépp mooy ki ëpp yermande ëpp ab lewetaay doon koo xam ne képp kuñ wattu moo la wattu sun borom tabaraka wa taala nee na fa allahu xayrun xaafisan nee képp kuy wattu wala ngay garde dara sun borom tabaraka wa moo la dàq garde wa huwa arxamu rahimin te kuy am yermande itam sunu borom tabaraka wa taala moo la ëpp yermande ndax la nga am ci yermande moo la ko mosal allahuma ya waliya alladina amanu sabbitna ala alimaani walislaam xata nalqaak waxud binawaasina lilbirri waltaqwa allahuma zayyinna bizinati aliman wajcalna hudatan muhtadin wa albisna libaas altaqwa wa zawidna bizaadi altaqwa wa aatina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasanatan wa qina aadaab annaar allahuma inna nasaluka imanan wa naciman muqiman la yanfad allahuma ashfi mardaana wa marda almuslimin waxmi <coughs> warxam mawtaana wa mawta almuslimin waqdi dayna an almadinin min almuslimin wasallim bilaadana wa bilaad almuslimin min makri kulli maakir wa kaydi kulli kaaid واحفظ لنا ديننا وإيماننا وإسلامنا ومساجدنا وكتاتيبنا ومعاهدنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد wa ala aalihi wa ashaabihi ajmaciin wa sallallaahu wa aqimi salaah